jërë ngeen jëf ginnaaw massage bu Ousmane Sonko ba ñoo nga léegi ca ramassage bu ñooñi Sonko yi yëral xët mu njëkk Le Quotidien bind na ne waa police ñoo ngi waajal ab opération ngir ramasser ñi jàppal tànk Ousmane Sonko ci parti Pastef donte am na ñu ci teg loxo jàpp gi jeexagul ñoo ngi wër ñoo xam ne li ñu leen di wëre moo di dañoo def ay audio ñu dégg leen ca ñuy woon nit ñi ñu fippu ci réew mi ak di tëkku ay kilifa yu nekk ci nguur gi ak i journaliste yu nekk ci réew mi benn groupe WhatsApp boo xam ne ña ca nekk nee nañu ñoo ngi bokk moom ci réewum Sénégal bu ñu ca noppee indil takk dere seytaane Vox Populi xëy di ñu leeralal ci xëtam mu njëkk li waral ba waa DIC division investigation criminelle tek soog waa kër Sonko yi ñaari enquête yi ñuy def mu jëm ci mbiri atteinte à la sûreté de l'État moo waral ba am ñu ci xàmmee ba tax ñu teg leen loxo ci Ndakaaru ak ci fu bari ci réew mi gis nañu ay message menace de mort yoo xam ne administrateur bu parti Pastef jabaram ci loolee yi fu ñu seenug nak moo di nee nañu dañu yore ay image nañu na ci lu yokk joote ji coordonnateur Pastef bu Ndakaaru ak jabari administratif parti Pastef journal L'As xamal nañu ñoo ba léegi ci loxoy takk dere ñu leen di enquête libération nañu Biram Souleye Diop administrateur bu parti jabaram ju ñu tëye ca dikk Patricia Mariam Ngandou la tudd responsable commercial ca Sen Sud Group lañu koy toppee yëpp nag moom soxna si weddi na ko nee na taqiwu ci laaliwu ci bañ na ko sax ba bokkul ci benn parti politique keneen ku nekk ci loxoy alkaati yi di Abbas Fall ñu koy enquête libé nee nañu moom nanguwuta sax tontu ci laaj ko enquêteurs yi di laaj yéenekaay bi nañu fi ñu toll nag bu ñu moytuwul bukki bi fi màtt ñu bari moo leen nar a màtt ci réew mi mu di article bi moom la parquet bi génnee teg ngir gën taral tuuma yi ñu leen di toppee topp leen ma ñu toppi enquête dina kay mi xëy toppi tànk yu waa section recherche ci at yi ñu weesu li ñuy dégg section recherche réew mi bari na bi ci mujj moo di mbirum DIC di division investigation criminelle ñoom lañ doon dégg ci yu bari léegi nag section recherche la ana lu andi loolee anki dina kay xëy na ci def gëstu bu yaa l'observateur moom xëy gëstu ji ay xibaar ci lettre bi juge bu huitième cabinet bind président assemblée nationale ngir ñu dindil ko immunité parlementaire bu Ousmane Sonko l'observateur nee nañu ca lettre ba x gi ñuy wax amu ca turu Ousmane Sonko carrément ak clairement moom la ci tudd sur soit a solal robu avocat député bu parti réew mi source waa xamal nañu ne bokkatul léegi ci commission ad hoc bi biig la ñu ko génnee lise ko nañu lettre bi non inscrit bind président assemblée nationale moo waral loolee ci la ñu génnee député Ndeye Fatou bu parti réew mi dugal ca député Cheikh Bamba ngir mu représenté non inscrit ci commission ad bi commission ad hoc ak plénière yi ko mi ngi ñuy dëggalal ne Aïda Mbodj mooy ki fa war a taxawal Ousmane Sonko ngir défendre ko démb ci talaata i aliyem lise ko nee nañu ci lu kenn yëgul daje ne ne Ousmane Sonko dana dem wuy ji commission ad hoc ba ñu ko sampal ci assemblée nationale Walf Quotidien ñoo coowal massage li tax ñuy ŋawte ŋawte Ousmane Sonko ak di ko jaabaa jonge fu nekk ci réew mi am na ay magistrat yu jàpp ne ku ko ci mandat dépôt doxaloo yoon ki wax ci journal bi donte bëggul ñu xam mooy kan wax na ne amul benn juge bu sérieux buy nangu yóbbu Ousmane Sonko kaso ci coow li journal bi di Walf Quotidien jàngee ci ne ci Sweet Beauté jàpp na ne ku yedd Ousmane Sonko ci loolee nga koy yeddee ba ci njëkk moo di lan moo tax bi mu yëgee li mu yëg ci yaramam demul cëb kinésithérapeute ngir mu maase ko waaye di dem ci maasekat bu jigéen bali ko ci fekk fekk ko ci ñaareel bi di li mu jël coow li def ko mbirum politique ñetteel bi di li mu ne ay militant am nañu jóg fipp jàngalekat yi mi ndax du ñu yegg ci fipp ne coronavirus bi mi ngi leen di wan lu dara jarul La Tribune wax ñu ne kuréelug jàngalekat yi di CUSEMS ñoo xam ne ci seen jëmi bopp ne bi coronavirus bi duggee ci réew mi ak léegi faat na fi ñaar fukki jàngalekat